Gaoussou est-ce que 12 mois moo ñu des ñu àgg ci li nga xamante moom élection présidentielle bi seen coalition jot na dina am candidat. non fu mu nekk nii moom du 3 à mois jot na nekkul ci logique gu am candidat ñun jot na fi ñu jëm mooy. parce que jamono ji ànd ngeen nag président Macky Sall moo tax. jamono ji fi ñu jëm moo tax jamono ji def démb def nañu réunion. le président Macky Sall dafa fal le président le docteur Abdoulaye Niane président euh, directeur de la BNDE. Mhm. te ku xam Abdoulaye Niane. xam rapport yi Ablaye Niane am ax waa jot na ñi nga xam ne bi Ousmane génnee ñun ñoo des. Mhm. man ak ñu mel ni man bi ñu toogee waxtaan dañ ne bu ñu bëggee contre le président Macky Sall mooy que ne tey Ablaye Niane li ñu ko jox yéenewuñ ko ñun léegi fi ñu nekk mooy dañoo fas yéenee waa jot na laa la wax dañoo fas yéenee jàppale le président Macky Sall ci politique économique bi mu jëm xam nga mooy lan. Mhm. mooy que ne tey. projet yi nga xam ne ne man mi di wax yow je suis un opérateur euh, économique am ay projets yoo xam ne pour la diaspora phase de finalisation lañ nekk laa nekk ni ak projet ak banque à des banques sénégalaises tuddee ko la cité de la diaspora mais projet pour les sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk à l'extérieur amuñu ay këyit bëgg ay kër des fois du ñu am ay crédit bail des fois du ñu am ay banques yoo xam ne da leen di jàppale mm-hmm. tey man au lieu may au lieu ñun waa jox na ñi nekk ci opposition bi dañuy contribuer positivement pour le développement du pays. beneen bi xaar ma wax la beneen bi temps temps bi mooy xaw ma beneen bi mooy le plan énergétique dinañ ci def ay efforts yoo xam ne dinañ jàppale l'action du gouvernement mais nañ jàppale l'action du président de la République tey lépp loo xam ne dafa jëm ci PME PMI lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum développement au niveau local dinañ fexe ba. xale yi ndaw ñi waroon am liggéey am liggéey nañ fexe ba góor ñi waroon am liggéey am liggéey nañ fexe parce que tey euh, euh, sëñ Babou mhm. dafa am lu ñuy oowee le terrorisme politique bu ne commencé am Sénégal dafa am ñoo xam ne dañ la bëgg gëmloo ne ne Macky Sall baaxut ñoom ñoo baax te ñooñu maa lay waxal ne léegi da ngay président Macky mu présenté pour une troisième fois waaw mais xam nga tey non damay laaj yéen coalition jot na si di si ànd débat boobu waaw mais xaaral ma daaneel da ma posé question da may may ma répondre question boobu yaa ko wax yéen journalistes yéen a ko wax. mais est-ce que mais moom laa lay wax dama lay wax est-ce que yow dégg nga le président Macky Sall xam nga dara pour nga mën ci répondre ñun dañ ne pour ñu mën a wax ci waxi troisième a quatrième ak dixième mandat dañuy bàyyi ba le président Macky Sall wax na ne dafa bëgg dem mais kooku waxul. waxaanewul. mais su ne daa bëgg na mais da ngeen ànd ak moom. waaw mais dama ne la xam nga tey non en fait. xam a engagé wu pour une nga man am naa ci position dama nekk ci télé am naa ci position mais mënu ma jël yenn position coalition bi mënu ma wax au nom coalition mënu ma tamit wax la loo xam ne ne suba damay génn ma wax la leneen xam nga lu ma la mën a wax mooy. Mhm. ñun waa coalition jot na. Mhm. amuñu. on n'a pas de compte à rendre à qui ce soit. Mhm. surtout à cette opposition là. parce que tey l'intercoalition bi ngay gis nii. Mhm. bu taxawee dëgg ba ñu naan intercoalition. Mhm. non suñu liggéey la. tey ànd nañ ak Ousmane Sonko. gis nañ Ousmane Sonko li mu mën. ak lu mu mënut ak lu mu am na ci yoo xam ne wax naa ko encore une fois wax naa ko ñu bari. ñu may poser ay questions yu bari duñ ci nangu dugg tey duñ ci nangu dugg parce que bokkul ci élégance ay nit di ànd di xalabante ñun xam nañu. d'accord bu dee opposition sénégalaise bi. Uh-huh. xam nañ li ñu man ak li ñu mënul xam nga tey ñun fan lañ ne. Uh-huh. ñun tey fu ñu ne. Uh-huh. mooy dañuy dañ ne dañuy contribuer au développement du Sénégal. d'accord nga tey pour nga bëgg pour nga mën a contribuer au développement du Sénégal mënoo ko def ba pare naan da ngay contrer le pouvoir. jaajëf techniquement c'est impossible.